sët bi borom bi defal mu jiite taawa ki galante galaat ndandum ngërëm kalaat sët bi borom bi defal mu jiite taawa kookaa di doomi sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon nu bàyyi doon nu maam lu dëgg mooy jubalaat kooku di doomi Sëriñ Basiiru tey setu daam ka doon nu bàyyi doon nu maam lu dëng mooy jubalaat moo taaru doon na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu taaru bi téem ca baay ba dal solaat xanaa ki may wax bu doon aw cax la kon càqi ngeen aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare mu mel ni tey ñu ngi fii si Masaalikul Jinaan si ngan li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tarixatul muridiyya jagleel na ko waa Dakar waaye comme niñ ko defee woon ci ouverture bi tey mu ñëwaat mel ni liggéey bi noppegul woon ñëw teg xeer bu njëkk ci complexe bi nga xam ne ñu koy def fii si jumaa ji comme niñ ko defee woon rek sëriñ bi defal ñu tawfeex ñëw siyaar si waa Dakar waaye bis bi nga xam ni ñëw na fi bisu àjjuma muy fàttali lu bëri si li nga xam ne mooy suñu jàmbaar si Ahmadou Bamba ñëw gi nga xam ne na ko Ndakaaru dund gi metti nga xam ne dundoon na ko na ko ko suñ borom jagleel ko fay ko jumaa ji toll nii nga xam ne ci biir Ndakaaru néew na jumaa ji toll nii ci Afrique de l'Ouest tey sëriñ bi ñëw di yeesalaat liggéey bi te complexe bi nga xam ne war ko koo def fii ci liggéey bi waaye defal ñu gan lu rëy loo xam ne murid yi si àdduna bi yëpp Sénégal waaye rawatina Dakar sant nañ ci sëriñ bi bu baax a baax a baax di ko ñaanal saa borom yàggal ko fi guddal fanam wëral ay cërëm ba ca kanam mu mel ni ngan gi ñetti fan la daa tàmbali tey si ajuma ji suba ci samedi ak dimanche muy ngan loo xam ne ni ma ko waxee rek sant lañ ci lañ ci def ndax sëriñ Tuubaa moom léppam loo xam ne lu mu jëmoon la ndax lil mun taxaaw jabtu fi ndakaaru zikran lihi xat kutibal makaaru mel ni Serigne waa moo dellu si waat tey ndakaaru waaye dellu si fi tey ci ab bànneex bu rëy bu ko defee yéen a gis mbooloo mi nga xam ne ñu ngi koy teewe ci barab bi tey sëriñ bi war fee julleeg ñun àjjuma gis ñi nga xam ne ñu féete ginnaaw li waa Jeysun di kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo féete fii si jumaa ji bu ko defee rek ñu bàyyi leen ngeen xool mbooloo mi xool teewaay yi waaye démb lu yéem a am ci ndax sëriñ bi guddi bu njëkk suñu borom daa wàccee xéwal bu bëri ndox muy ndox bu yërmande yal na uh, tasaaroo ci dëkk bi yëpp ba lépp loo xam ne rek ay jàmbat la lépp loo xam ne ay jàkkaar loo xam ne fan yi ñu génn yëpp Ndakaaru mi ngi koy jànkonteel yàlla sëriñ bi ñëwam gi fanqal ñu loolu lépp rek defal ñu taysiir ak tawféex yokku bu baax barki Cheikhul Khadim kon dañ leen di bàyyi rek ngeen xool image yi nga xam ne ñu koy ñëwee ci barab bi ak lépp loo xam rek dina fi am tey ci daayira yi si waañ yi comme ni ñu ko waxee nga xam ni waañ ñu bëri tey dañ koo centraliser li nga xam ne moo wër si jumaa yi mu nekk ay waañ yoo xam ne pile mën a par jour dañ ko teg saa nag dañ ko rey par bis loolu Serigne Touba rek a ko mën kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bataal te mus la fay boobee ba tey ku fi jaar saw say nga jël jëfal mooy taalu xam-xam ba bambataal te kat mus la fay boobee ba tey ku fi jaar saw say nga jël jëfalat sayam wa Seex Muntaxa daaray amul lu ni mel xambal na taalu bi yëpp seeni taal taaliwaat jël kàddu yàlla gi wax ni nan ko yëkkati kat te bañ mu laalati suuf na ñëpp yëkkatiwaat baytu zakaata ngi nii ko aajo azaka bum tiit sëriñ bi amal na kër gu ñeel azakaat yaakaar yi way ñàkk yaa ngi dimbala na ngi ku xiif ba yegsi ci moom mu daldi jël ya falaat walaayi moom fa nu mag ña cëri yanu am falan ko sédde cëram mu ñëw di sédde lawaat seexul xadiima di maam ja sëriñ basiiru di baay ba moo waral ni mu mel si di dafay rogalaat Pastef bu doon géej la moo ko fey bu doon dexitam Cheikh Muntaxaay ki ko xuus pa jàll dal di weet ak dogutam bu ni woon am ndox la mooy ki ko naan bu doon lu nuy wutitam du mooy ki koy wuti waat man xaadimul muslimiin defal ko kopp ku di jullit di sabaat Cheikh Muntaxa na yàlla buur bi guddal saw fan yi yokk la wér banaal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat na yàlla buur bi guddal sa fan yi yokk la wér banaal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat ci barke Seexil Xadiimi jaamu yàlla balaw ñi jiitu ak ñi ñëw gannaaw bi ak ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba luy nit ku ñuul ak weex ka yàlla may darajaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba luy nit ku ñuul ak weex ka yàlla may darajaat subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin waaw mi ngi mel ni tey gis ngeen li nga xam ne taalibe yi génn nañ ko wuy si Serigne Mountakha Bassirou ah lu ngeen dund ngeen dundee bis bi. mbégte rek mbégte ne ko sëñ Mountakha waxee rek mbégte rek ñi koy ñaanal mu gën fee yàgg gën fee yàgg ndax bu fi yàggee suñu njëriñ la waaw te ñu koy déglu nag sëñ Mountakha waaw sëñ Touba nag mooy sëñ Touba de. mooy sëñ lil muntaxa tuma yasoro bila nihayatan wa xidmate taqabala yasir le sayedel wara maxtara ya baaxiyan njaxal la xooren Xaadimu Rasuul karam ak mu tere nelaw bani gaay waale kaddu ñoo tax ma jóg di wax karaam ak borom Touba gi. rek maanaam lii moom ak mbégte la ndax bés bi moom maanaam sëñ Muntaxa ñëwaat gi day béyitam boobu mu naan li sëñ Touba naan lil Muntaxa wajjatu fi Ndakaaru zikran bi xat kutibal Ndakaaru maanaam day mel ni jëmmi sëñ Touba gu nekk fi moo tax mu yi mënuñoo bañ a ak àll ndax sëñ Touba nekk ci ñu biir lii ku ko xool. démb taw bi nu mu demee xam ni mbir am na te ndakaaru dana am jàmm ñu santaat Serigne Touba bu baax di santaat Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy Serigne Touba ñu ngi koy santaat bu baax a baax di waxaat jërëjëfat Serigne Touba ndax sant nañ baax amuñu lu dul sëriñ bi te gëmuñu ko dul sëriñ bi ndax Serigne bee ñu dimbali. li ñuy yëg moom wallaahi mu mu ma la ko sax wax ndax dañoo bég gëm gëm Serigne Touba mi nga xam ne. kenn xamul lu mu doon Ahmadou jaam yi barki Serigne Touba Mbacke lu mu doon kenn xamu ko lii lépp day wane dëkk bi dëkk moom moo ko moom Serigne Touba ci boppam moo moom réew mi gars yi loolu laa bëgg ñu daa koy xam ndax sëñ bi la moo tax mu ne la xaama ñëw fii daa fi julli juma maanaam nekkul saayar kenn xamul maanaam la moo tax yow mu ñëw fii barki borom Touba Mbacke taay dëkk bu metti beeg rey lépp xam nga ak lii xew fan yii yëpp xam ni moo tax danoo béeg ba mënuñu mënuñu sox wax barki maam Serap Fall yéen moom seen liggéey rafet na trop barki maam Serap Fall dañu ñaan yàlla suñu borom dafa ñu ay milliardaires Serigne Touba rek dafa ñu xewal lii daf ca kanam rek barki maam Serap Fall Touba ca kanam rek. man xaadimul muslimina maa la way defal ko koppi ku di jullit di déglu sabaat Cheikh Muntaxa na yàlla buur bi guddal saw fan yi yokku naal yeneeni naal na yàlla buur bi guddal sa fan yi yokku naal yeneeni naal ci barke seexil xadiimi jaamu yàlla baraw ñi jiitu ak ñi ñëw gannaaw bi ak ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gën luy nit ku ñuul ku weex ka yàlla may darajaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gën. àndandoo la ilaha illallah fa la ilaha illallah ndimbaloo faal yërmande faal doole biir faal ak biti addi sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf euh, boo ko bëggee tënk waxal ñaan gu nangu la rek boo ko bëggee tënk waxal ne ñaan gu nangu alxames na ñëwoon Ndakaaru mu metti loolu mu déparé woon Ndar ca taxawaayam ba jàmbatu ko onkatu ko ñëw alxames bi timis di jot mu foog ne dañ koy jox lu mu lekk ngir mu ndogoo ko ñu dugal ko ci boo xamante ne boo dëggee tànk. deret sotteeku boo yëngalee mbagg deret sotteeku boo siggee deret sotteeku waaye mu doyloo digganteem ak yonent bi ak cofeelam bi mu wéttalikoo ci way juróom wu jigéen li mu ni ni ko lu nabi daj taayif bu dee seen ànd dëgg la yéen ñaar di nga daj lu ni toll ci yoon wii yonent bi taayif la dem ñu sànni ko ay xeer wa saaxa addumaw wa sala damulil xadami cheikhul xadim ñëw ndakaaru waaye li ma gën a neex ci ndakaaru gi mooy la mu waxoon yonent bi ni ko dammi wa ahli wa awlaadu fidaa un lahoo mooy sama deret sama askan sama ay doom yëpp jox naa la ko waaye jox googu te dafa meloon ni Moussa dafa meloon ni benn karaw tubaab bu nekk yàlla defal na ko Cheikhul Khadim bëccëgu tey gii mu ñëw fii ci Masaalikul Jinaan alxames la fi Cheikhul Khadim ñëwoon ajjuma la fi Serigne Mountakha ñëw te bu fekkoon ni doomu Cheikhul Khadim moo fi ñëw nga wax ni kon waxu yàlla ji doy na waar yàlla sët la gën a mën a fay doom walazina amanu wattabaatuhum zuriyatuhum bi imanin alxaqna bihim zuriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min cheyin Cheikhul Khadim bi muy bind ndakaaru turu sëñ Muntaxa la defoon kon Cheikhul sëñ taxa buy ñëw ndakaaru di ko ibbisi kon nga xam ne kon ñaanuk Cheikhul Khadim gi nangu na lil Muntaxa wajëxtu fi ndakaaru zikran bi xat kub kibal makaaru fi mu toll nii koo dajal muy dox laaj ko fu mu jëm xamu ko ñi dañuy dox rek gisoon nit ñi naan la ñu def lekkuñu parce que lan moo tax bii di fees na waaye bi ñu waxee sànq mun Muntaxa ñëw na kenn ku nekk sa sidutu jëy jóg na ñëpp a ngi daw di ko xool loolu nag liggéeyu maamam la ak cofeelu maamam Cheikhul Khadim aju may tey ji yàlla na ci yàlla def ngëneel ci barke Serigne Muntaxa réew mi jaarale fii seddaale ni mu wisee tey ci suba alaama la tegtal la yàlla na yàlla def réew mi xaptal bi nit ñi di xabtalu di tur deret yàlla na yàlla delloo si leen gis nga ki rey li rey di metti metti metti moom mi rey nu ko raw lay méttee ci ay mbokkam parce que yaayam dootul set day xat ci koñ bi baayam dootul set day xat ci koñ bi rakkam noonu kii jigéen ji nga xam ni moom itam moom la jëkkëram dem ëllëg bu waree amaat borom kër ku ko bëgg a takk di nga ni eh kii mooy ki dugaloon jëkkëram te nit ñi dañuy wax leen wóorul yowmal qiyaam dina am kuy waaj a dem aljana yàlla ni waqifuhum innahum mas'ulun taxaw loo leen ñë dama leen di laaj laaj leen ba tax lu tax ñu dem safara kon yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp ci barke Serigne Mountakha